Ansoumana Dione ñu ngi lay nuyu ñoo lay fay Elisabeth. waaw may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey jii ki nga xam ne moo jiite association pour le soutien et la réinsertion des malades mentaux ñu gën ko xam ci ASAM muy Ansoumana Dione ah, gannaaw nag buñ la nuyoo monsieur Dione ñu wax ne ay atti xeex a ngi nii ah, tey jii ñu mën a wax ne sax acquis gannaaw bala ministère de la santé ak action sociale jël dogal ne dinañ leen jox centre Kaolack nga xam ne ah, moom la ñuy jël pour seen liggéey bi ngeen nam def. def ci seen xeex mi euh, tey jii euh, loolu lan la ci yow lan la représenté. Euh, di am di am mbégte gu rëy di sant yàlla te xam ne lu yàgg dëgg la xam ne dëgg it mooy mujj loolu lu ñu mës a gëm la lu ñu mës a jàpp la ñaar fukki at ngay xeex ci benn mbir ba nga xëy ñu delloo la loo xamante ni moom nga doon sàkku askan bi yëpp xam ne yow yaa ko moom mm-hmm. ndaxte ñun ba ñu tàmbali en deux mille en mille 2002 ñu gis président Ablaye Wade mu tabaxal ñu ab hôpital ci Kaolack waaye nag bi Macky Sall ñëwee Awa Marie Seck mi fi nekkoon ministre santé ànd ak professeur Aïda Sylla di psychiatre ñoom ñoo def seen ay pexe ba suñ kër googu ci Kaolack ñu nangu ko suñu loxo tëj ko nag bañ ko tëjee 2013 ba 2020 mhm. juróom-ñetti at ñu toog di xaar ñu toog di xaar ba ba ba feebar bii di Covid 19 ñëw. Sénégal yëpp di sàkku pour ñu jël en charge ñu amee feebaru xel maanaam ñu jël leen ci mbedd mi mhm. foofu ñu Abdoulaye Diouf Sarr woo ñu ñëw toog bi ñu waxtaanee mën nañu wax dëgg yàlla day centre bi nekk Kaolack te ngeen moom ko mhm. bu soobee yàlla dañ lañ ko delloo mu jox ndigal docteur Aram Top Sen mhm. Aram Top Sen mooy directeur général bu action sociale kooku tamit ngàccee ngalaama moom euh, def ci liggéey bu mucc ayib woo ñu woo képp ku liggéeyandoo ak moom ñu waxtaan benn samedi. waxtaan bu yàgg yàgg yàgg ñu juboo nag waxtaan bu neex bu bu bu jaar yoon ñu tënk benn kayit kayit boobu lan la ci directeur général bi wax da da da daf ne état bu Sénégal dana delloo asam këram boobu ci Kaolack ñaareel bi danañ ko reconnaître utilité publique maanaam asam li muy liggéey askan bi la koy liggéeyal ñetteel bi mooy état bu Sénégal jaarale ci ministère de la santé danañu jàppale asam danañu ko dooleel ci lépp lu soxla ci wàllu moyen ci wàllu xaalis daañu ko dimbale pour que liggéey bi nga xam ni moom rek nag muy asam moo ko mën def ñu mën koo def en tout cas nu mu waree. ndax jébbal leen euh, centre boobule dina tax ba malades mentaux yi errant euh, surtout dinañ gën a wàññeeku ci mbedd yi. benn centre boobu rek danañu doy ñun ñun ba ñu jóg en deux mille dañu naan bu ñu amoon benn kër ca Kaolack boo gisee ñu def ko ci Kaolack Kaolack moo nekk ci xolu Sénégal moo nekk ci digg Sénégal mm-hmm. di nga mën a jël ñu nekk Tamba Kolda Diourbel Dakar Thiès Saint-Louis ñëpp di nga leen mën a jël en charge mm-hmm. parce que kër goo xam te ne mën na jël ba téeméer ba ñaar téeméeri nit wala sax lu ëpp par weer lu mu bari bari weer euh, ñii fukki fan la juróom sax mën nañoo tane ñu delloo leen seen bi seen bi ay kër mm-hmm. donc benn centre boobu noonu danañu doy parce que ñun. bu ñuy jël dañuy jël en fonction de kii nga xam ne tey foofu la Covid 19 bi gën a dëgg wule ñaay mm-hmm. tey bu ñuy tàmbali dañuy tàmbalee fii ci Ndakaaru dañuy jël ñu nekk Dakar yóbbu leen Kaolack bu bu ñu jeexee Dakar mm-hmm. ñu dem Diourbel bu ñu jeexalee Diourbel ñu dem Thiès noonu lañ koy defee buñ ci non non normalement buñ ko defee juróomi at mm-hmm. juróomi at yu teglante benn nit ko am feebaru xel dootul taxawati ci mbedd mi waaw lii. lii dëgg la de mhm. euh, comme ni ko tubaab di waxee il n'est jamais trop pour pour bien faire waaye buñ ko teeloon def heure bii duñ sonn waaye nag dañuy sant yàlla gannaaw euh, ba euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñëwee à temps parce que mënoon na amaana su su su xaw a ni yéex mhm. dana woon gën a doy léegi nag buñ defee loolu ba noppi lan lan mooy def mhm. mooy fexe ba ñooñu nga xam ne faj leen leen ñu mun leen a toppatoo suivre leen ndaxte tey. Sénégal ñi am feebar xel benn problème kese la ñu am mhm. boo demee hôpital Fann nga dem caaro yi ña fay entré rek ñoo fi entré da ngay entré fukki fan a juróom weer génn mhm. ñaari weer nga ñëwaat donc ñoom euh, euh, na ma gisee tout tout le temps mooy psychiatrie du faj ci psychiatrie dafa mel ni oto bu paan mhm. gars yi ñëw pousse ko buñ ko poussé ba mu tàkk rek léegi nag chauffeur bi mooy fexe mu démarré psychiatrie day day fexe ba nikki ki am feebar xel mu tegu ci yoon mhm. léegi nag lay tax nit ki mën a doxal boppam dem loolu leneen la te ñun ci loolu la ñuy mettre mooy la partie réinsertion te partie réinsertion boobu noonu pour mu nekk mooy mooy famille bi askan bi ñëpp ay taxaw temm pour dimbale kooku nga xam ne moom la ñu fajoon ba mu wér mhm. boo jëlee tey ba xale boo xam ne euh, da dafa menuisier mhm. am feebar xel nekk ci mbir mi taxawaalu boo ko fajee ba ba mu wér même bu ko seen waa kër jàppale te amul atelier menuiserie bu bu mu liggéeyee amul société bu ko mën a embaucher kooku dafay delluwaat ci mbedd mi encore donc il faut que société bi yëpp laxasaayu askan bi yëpp laxasaayu dimbale ñooñu nga xam te ni ñoom la ñu euh, war a fexe ba ñu réinsérer gannaaw bañ defee ay ay ay fan ci hôpital bi ba seen xel euh, xaw a dellu si léegi rek ñëpp na boo xam ne jàppale pour mu teguwaat ci yoon. ndax jàpp nga ne sa message ñu bëri comprendre nañ ko. ñun ba ñu tàmbalee en deux mille. Mhm. Sénégal yëpp rafetlu suñu jëf. taskati xibaar yi président yi fi jógee digal président Ablaye Wade fi jógee Macky Sall bi fi nekk tey jii euh, président Ablaye Wade daf ma daloon en deux mille deux euh, Macky Sall ñëw en deux mille treize premier conseil des ministres bu mu def euh, ginnaaw ba ñu ba ñu màggalee fukki fan weer octobre atum 2012 ba ñu màggalee ñoo amee feebaru xel euh, ci fukki fan ñett ba euh, président Macky Sall dafa jox instruction ministre de la santé bi ñëwaat amee ko sec ne ko leen ñu amee feebaru xel ci mbedd mi ak kuréel gi kay toppatoo waaye nag kàddu yooyu dafa mel ni ki fi nekk ministre de santé soxalu ko moom ak li nga xam ne ñooy psychiatre yi ñoom ñoo doon suñu problème parce que ñun problème mu asam problème ñu am feebaru xel mooy ñiy faj feebaru xel. Aïda Sylla moo fa nekkoon euh, chef division santé mentale tey docteur Augustin Tine moo nekk division santé mentale au niveau du ministère de la santé ñooñu ñooy noonu ñu amee feebar xel parce que ñooñu ñoo fexe ba ci na waxee nii centre boobu ci Kaolack ñu teg ko léegi nag yàlla indi na ministre boo xam ne nii Abdoulaye Diouf Sarr liggéeyam yëpp mooy fexe ba Macky Sall lu mu bëgg suba mu gont def ko mhm. léegi nag kooku moo pare pour delloo ñu mbir moomu noonu comme ni ko Macky ko parce que président Macky Sall ku ku ñu yàgg dimbali la saa bu ñu xewlee daf ñuy jàppale ci wàllu xaalis da daf may bind ay lettre di ma félicité waaye nag bu amul jëwriñ boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram mooy mooy doxal li mu bëgg mënul nekk loolu moo tax bi yàlla indi Abdoulaye Diouf Sarr tey jii Abdoulaye Diouf Sarr taxawee nii ñun dañ ci sant yàlla tey sax Abdoulaye Diouf Sarr mooy bàyyu mooy baayu képp ku am feebar xel nekk ci mbir mi taxawaalu mooy yaayu képp ku am feebar xel nekk ci mbir mi taxawaalu ndaxte moom moo ñëw ne kii kuréel gii di asam Ansoumana mi dama leen di jox lañu moom pour ñu mën a dimbale ñu nekk ci mbedd mi taxawaalu su boobaa Sénégal dootu am kenn kuy taxawaal waaw loolu ana ban liggéey moo ko gën a baax amul benn sénégalais boo xam te ne tey ji yaa ngi yeewoo ci réew mi te sa yéene nekkul ci ñu toppatoo ñu amee feebul xel parce mm-hmm. xibaar yi kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi amul kenn ko amul yéene tey jii bu ñu joxoon tey jii suñ tànt bi ba man en ce moment ba ba ma toggee sama biroo ci Kaolack di ngeen gis fii suñu ay partenaires ay sénégalais bitim réew yu génne seen ay alal laa wax def ko si ñooñu am feebar xel parce que sénégalais moo bëgg lu baax man en ce moment rek gënumaa bëgg lu baax sa sénégalais déedéet man la yàlla wërsëgal ma jiite kuréel gii waaye am na ñu ma gën a bëgg téeméeri junni yoon ñu am feebaru xel te ñooñu bés bu bés buñ ci buñ ci yeggee. dana danañu gis président Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr ak yeneen nit ñi nekk fii ci Sénégal te du du tudd seen tur yoo xam ne seen yeneen yëpp mooy jël seen alal dugal ko ci ak ñaame feebar xel. Mhm. bés bu ñu ci yeggee nag daal di gis sénégalais génne alal goo xam ne dafay jaaxal nit ñi alal boobu nag moom la ñuy jël toppatoo ñoom feebar xel wute leen ci ay euh, ay liggéey ñenn sax dañu ni tabaxal kër parce nit dana génn ci mbedd mi. dem dugg ci kër boppam loolu yépp ci suñ ay pexe la ak suñ ay xalaat. wax ci li nga xam ne mooy prise en euh, charge bi tey ji malades mentaux errants yi ndax euh, tey jàpp nga ne am nañu prise en charge bu doy euh, bi mën a accompagner li ngeen mbébét jamono ji. xam nga Sénégal masul toppatoo ay doom yu am feebu xeet yi ba ñu mi si mbedd taxawaalu mm-hmm. mosu fi am. ay benn benn la la le préfet yi di yabal caaro yi ay benn benn. day fekk sax ñooñu am ay jafe-jafe wala mu ñu sonal ay nit waaye sunu kuréel gi di asam rek moo leen mën a jël en charge te bés bés bu ñu tàmbali liggéey bi lépp dana yemm sa Sénégal sa juróomi at dootuñu gisati dof ci mbedd loolu moom ñun loolu loolu mën nañu ko garantir mm-hmm. léegi nag euh, li ñuy wax xëy na gaa yéex na waaye euh, dañu sant yàlla mm-hmm. xam na nag yàlla may nattu man ba may tàmbali en deux mille laa ne si ña ña ma sosol de mbir mi. ku yàkkamti man man ngaa seeti leneen mhm. ndaxte lii liggéey bu yàgg la en deux mille déjà xamoon naa ne da yàgg parce que yàlla du yónni nit te nattuwu ko mhm. te man Ansoumana Dione dama jàpp ne suñu borom moo ma sas moo ma tànnal boppam comme ni ko góor ga waxoon ci Tambacounda mhm. en deux mille en deux mille benn góor gu baax ma dajal Tambacounda mu ne ma yàlla mooy néewal doole askan mu seet ku néew doole dooleel ko moom yàlla pour mu dooleel ña mu néewloon doole ngir wane doole moom yàlla man Ansoumana Dione um, ba ba fii may waxoon nii aw ma benn kattan mhm. aw ma xaalis yoru ma moyen yoru ma dara mais yàlla moo ma dooleel boppam ba tey ji ñu taxaw pour dooleel ñu amee feebaru xel kon nga gis ne dëgg rek mooy dëgg donc euh, bu ñu yàlla dimbalee danañ dem ba kenn du gisati kuy taxaw ci mbedd waaye nag loolu yëpp nag dañ koy gërëmee dañ koy gërëmee docteur Aram Top Sène directrice générale bu action sociale moom mi woo ay techniciens yëpp ñu liggéey liggéey bu mucc ayib jël liggéey boobu jox ko ministre Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf pare pour doxal lépp loo xam te ne moo ne ci kayit boobu noonu te bu ko doxalee mooy santé bi dana yegg ci sunu loxo kayit boobu rek mooy wane ne centre bi mi ngi ci seen loxo parce que direction générale action sociale moom mooy yor centre bi mm-hmm. kon bu direction générale action sociale dañ ko delloo asa mi fi mu nekk nii mi ci suñu loxo amatul kenn mënut ci dellu gannaaw te te nag yi kenn mënut ci dellu gannaaw même Abdoulaye Diouf Sarr sax tey jii su ko bëggutoon sax mënut ci dara. Mhm. te heureusement nag a Diouf Sarr ci boppam moo njëkk bëgg lool moom mi santaane woon na ñu def euh, liggéey boobu noonu ànd ko ak suñu kër gi di asam moo tax dañuy sant yàlla nit daal lépp looy def nañ ko gëm oh. lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. yàlla dala ci fekk si am na sax ñoo am na sax ñoo ñu ñu boo ñu sax ba yaakaar ne lii sax euh, mënatul nekk jeex na man leen mënul jeex parce que tant man maa ngi dund xeex bi duma ko bàyyi. Mhm. te duma mës a rëccu at yu ma ci def. ñaar fukki at li jëm ci euh, ñi nga xam ne ñooy spéci spécialiste yi ndax dinañ am euh, di ngeen am accompagnement. di ngeen am ñu leen accompagner ci mission bi. waaw loolu moom danañu ko am bu soobee yàlla ndaxte mooy troisième point bi ne ci document bi ministère de la santé euh, danañu accompagner ci loolu ci wàllu docteur ci wàllu infirmier ci wàllu aide infirmier te même bu ñu ministère de la santé accompagner wul sax. ASSAMM mën na utal boppam ay psychiatre ah. mën na utal boppam lépp loo xam ne aaj ñun daal leen rek la ñuy sàkku te am nañ ko mooy bu ñu joxee local bi rek li des attan nañ ko li des yëpp attan nañ ko léegi nag euh, waaye nag nit ki nit ki loo mën man man mën mën man mën ki nga xam ne ni moo waroon def parce que état bu Sénégal moo aman mission pour toppatoo ñooñu mhm. waaye da koo mënul léegi nag comme mënu ko ki ko mën da koy jàppale yow boo amee sa lettre boo xam ne da nga koy yóbbante mhm. mu jógee mu jógee Dakar dem Tambacounda te mënoo dem Tambacounda da da ngay dem poste. yaa ngi koy wax sànq li jëm ci li nga xam ne mooy prise en charge bi nga ne euh, hospitalisation bi dafa cher tey jii euh, lan moo ci seen plaidoyer. waaw euh, loolu yëpp nag sama nekkin ci biir ministère de la santé de l' action sociale ndaxte damay fàttali ne Abdoulaye Diouf Sarr dafa ma def conseiller à la direction générale de l' action sociale foofu te pour que ma mën a indi samay xalaat ñu mën ko fa dugal ñu mën ko fa doxal man léegi sama plaidoyer léegi. du ci biti waaye si biir la comme maa ngi ci biir système bi ah. dana mu yomb lool li nga xam ne moom laa yéene ñu amee feebar xel ñu mën ko doxal ndaxte euh, am na loo xam ne na nii nii nii nii nii sax du ma ko mën a wax waaye euh, l'essentiel mooy danañu fexe ba euh, ñi am feebar xel ñoom ñëpp fu ñu mënta nekk ci réew mi boo ñu faju mooy l'accessibilité aux soins ki nekk Diourbel mën na toog Diourbel fa faju parce que boo jëlee tey région de Diourbel ba région de Diourbel jeex. amul fenn fu ñuy fajee foom feebaru xel du Jurbel du Touba du Mbàkke du fenn donc yooyu yëpp ay problème yoo xam te xam nañ ko te comme ñoo ngi si biir ministère la santé dañ fa mën a jaar ba lépp ñu doxal ko ak yeneen ak yeneen yoo xam te ni fexe ba nit ki di faju te wax dëgg yàlla du génne xaalis bu bari mm-hmm. tey jii boo jëlee euh, feebar bi feebar bi di Covid 19 euh, nit ñaa ngi faju te te te bon te duñ fay dara. Mhm. kon loolu aussi mën na nga xaar ci wàllum feebaru xel nit ki faju te du fay dara c'est bien possible loolu c'est bien possible au Sénégal ñu dem vers la gratuité des soins de santé mentale mhm. lu mën a nekk la xëy na ñi fi nekk ñi fi nekkoon amuñoon xalaat bi amuñoon xam-xam bi mhm. waaye nag Abdoulaye Diouf Sarr ba mu gisee ne kii kat amal na njëriñ réewam amal na njëriñ système de santé bi ki la ma jël dugal ma ci biir ministère bi. Euh, signal ma contrat noonu ma conseil à la direction générale de l'action sociale te loolu yëpp ngir njariñal ñu amee feebu xel ak nag ñi nga xam te ne dañu nekk ay néew du doole handicapé yi albinos yi ak képp ko xam ni rek euh, jàpp nga ne couche euh, ñoom lañu tuddee les couches vulnérables. Ansoumana Dione ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax. maa leen di sant di leen gërëm.